ci fukki million ak juróom-ñaar yoo xamante ne si moom la daal di encaissé ngir yóbbu ay nit ca Espagne waaye seen gaal googee mujjewut a yegg ñoom ñëpp daanaka ñoo mujjee faatu yéenekaay ne niki démb 37 victimes nag ñu daal suul foofee ca place ba waaye terew naka géej gi moo ngi wey di goqe ay bakkan ba léegi donte naka drame boobi am na ca Mbuur gendarmerie niki démb teg na loxo ñeneen ñoo xamante ñu nga bëggoon a foofee ca di à marée haute yéenekaay bi ne gën caa tuuti ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ seenu bakkan ni ki démb lépp lépp nag boo ko boolee yoo ci mbir mi ni ki démb jot na cee wax bilan ba nag moo ngay a mbir mi mbir ku ko waxul dégg nga ko mooy Barça wala barsàq bëgg jeexal gone yi yéeni bi di Sud Quotidien dikkaat ci crise bi nga xamante moo am ci poste recteur naka ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Diomaye Faye ne li nga xamante ni de l'Assemblée nationale ni ki bi yéeni bi yor yor nee na amul li ñuy mënta wax amul li ñu mënta def ba fexe rek duñu tas Assemblée nationale boobee ndax conseil des ministres jàll na bu noppi te kenn waxu ci dara conseil des ministres Omar Diagne engagé na ngir perpétuer nag ñu fexe nag ba sàlloo ak moo di dee am ci mbir mi tenue de déclaration politique générale nag niki 13 septembre bi lañ ko daal dee waajal waaye nag xii ni dong moo si am amul leen loo xamante leeragum na ci ndax ñu bëri njort nañ ne balaa booba nag ñu daal dee tas mabal assemblée nationale teral yéene kaay dikkaat ci droit fondamental société civile nag yëkkati nay kàddu ñoo ngi sàkk ci état bi mu respecter ses obligations ndax li ñu mën a tonangu mooy di tere ay nit ñu dal génn ci réew mi loolee moom teggul jaaduwul yéeni kaay bi nga a indi ab preuve indi rupture bi nga xamante nationale boobee xalaatu Amadou Mame Diop mooy président assemblée nationale lam ca xamle nag moo di amul benn objection bu mu def si mbir mi waaye rappelé na nag lu ci doon ne fukki fan ak ñett si weeru septembre bi moom la ñu ngir mën na ko ca wax tribune yéene kay di doole ci Karmi Khawar nee na nag yoon bi ak géej gi ñoo ngi bëgg jeexal nit ñi gën caa tuuti juróom fukk ak juróom ñett bakkan yoo xam ci yi nag patti pattaaral waxuñ ci buggaan gi dañu yëkkati ay na fintoon yi lii moo dal dee am 12 milliards yu pressan nag PC en péril yéene kay bi ne Badr récuse na coordonnateur de lutte moo di defkatu ñaawtee fi buggaan gi dañu yëkkati yëkkati ay kàddu nee na suñu gouvernement bi daanaka booy xool gouvernement bari donc waaye amul leen loo xamante si def nañ ko si jëf jëf ji ñuy xaar ci ñoom waaye nekkatul ay wax ndax booba ak léegi ñu ngi wax te jëfuñu booba ak léegi amagul benn saafara boo xamante si am na ca ñu bëgg nag fi mu ñu indi ci saafara balaa boye woy mbuus ndax booba ak léegi pataaral gi noppi na tey Sénégal chaque jour ak dossier yu bees ñoo ko déggandoo jàngin jëf